salaamaaleykum mbokki waa Sénégal salaamaaleykum mbokki Afrique mbokki Afrique ndax coow li lëmbee suñu réew mi kenn réeréewul mbir ni fii ba bitim réew ñu ngi bàyyi xel Sénégal sànq ci bëccëg rek laa jot euh, Théa Olivier mu di benn journaliste bu euh, RFI bu ñu accrédité fii au Sénégal ñu doon ci waxtaan alors ndéem média étranger yi ñooy dem ba di ko suivre kon nag maa yay ne salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Afrique salaamaaleykum waa àdduna yàlla dafa information complémentaire bi ma bëggoon joxe ci démarche yi nga xam ne ñun ñu ngi ko doon def ngir dox tànku jàmm ci gënte soxna Adji Sarr ak ki mu tuumaal di Ousmane Sonko précision bi ma ciy dolli mooy ñun pour wujje ak avocat yi suñu kuréel bi ñu tuddee le collectif des religieux pour la préservation de la paix civile buñ la nee kan moo ko jiite bu ñu nee abbé Jacques Seck rek normalement xel wal na dal ndax abbé Jacques Seck symbole bi mu représenté ci dëkk bi en tant que éminente personnalité de l'église ku dégg turam rek sa xel del dal ndax liñ ko xamee ci dëkk bi moo di dox tànku jàmm moo di yore pusoom di ràbb diggante yi abbé Jacques Seck nag li tax mu jiite kuréel bi c'est très simple mooy bi nga xamee ni assemblée nationale mu ngi examiner la requête du parquet bi doon sàkku ci pencu ndawu réew mi pour ñu teggi immunité parlementaire Ousmane Sonko mu di malaanu kiiraay bi ndax yoon mën a am accès ci moom kenn réerewul mbir ne à chaque étape dafa doon jur jiixi jaaxa non seulement biir assemblée nationale nga xam ne kàddu yu dëgër jib na fa werante bu tar jib na fa médias sociaux yi di ko transmettre en direct ñun ñëpp ñu teg ci seen bët kon amul lu ñu leen di mën a nettali ndax fekk ngeen lépp waaye bu fekkoon dafa yem foofu sax ñu mën koo sooxale waaye coow li dafa dem ba wasaaroo ci biti mu jur ay xeex ko xuloo ko fantasiro ba ñun wax dëgg yàlla dénombré nañu pas moins de quarante blessés a un blessé très grave moo di le jeune euh, Boubacar Ba nga xam ne jàppante yi amoon fii ci Bignona ci lañ ko gaañ gaañ bu metti ba docteur yi ne nañu loxo ko so ñu amputé ko ñu mujj ko dagg waaw est-ce nag ñun am nañu droit di seetaan ba jékki-jékki dootul yem sax ci ku ñu amputé loxo waaye ñu naan bakken rot na ci ñun amuñu boobu droit ba noppi nag ñu wëlbatiku nag bëgg def rolu naa feq bi bàyyi jaan bi romb ba noppi ngay jël yat di dóor ci watat bi mooy li tubaab di wax naan jouer le rôle hypocrite du médecin après la mort amuñu boobu droit waaw looloo taxoon nag euh, ci benn émission ci Walf ci la idée bi jibe ba ñu génne ci plateau bi fii dañu waxtaan tëjuñu sax ci bureau fii ñu taxaw nii rek séance tenante bi yëpp maase ne waruñu yem ci théorie rek ginnaaw bi nga xam ne justice ngi def liggéeyam am na loo xam ne justice mënu ko mu di conséquences yi dossier en la stabilité sociale avec la paix civile qui est en danger alors ñu nekkoon warutoo yem ci théorie ak i plateau télé rek war nañu wàcc sur le terrain dox tànku jàmm tout en laissant la justice poursuivre son travail loolu na leer alors moo tax nag ma bëgg a leeral ni comme que démarche la ñuy def ci wàllu médiation wolof di ko wax dox tànku jàmm médiation balaa muy am crédibilité ñi ko ŋànk dañu war a tëddee njaaxanaay waa kon jaadu na bu ñu gisee Ousmane Sonko ba noppi ñu dem gise ki mu joteel pas pour atte waaye pour ku nekk ñu mañ la sañ-sañ nga wax sa version Ousmane Sonko def na ko pendant une heure mu ngi recevoir euh, délégation bi fii ci këram le samedi 27 bii ñu weesu de 16h à 17h30 kon suñu waxtaan ak moom itteel na ko te jox nañu warma ak yar ak teggin waaye ñiy nëbb Adji Sarr nag ñu ngi koy rendre un très mauvais service boo xam ne vidéo bi may mettre en ligne tout à l'heure sama page Facebook dans euh, dans cinq minutes danaa ci wax lu bari waaye kàddu yi ma yëkkati nag li ma si jublu mooy ñun lañu ñu ragaloon am na président Ousmane Sonko jot na convocation bu juge d'instruction pour mu wuy ji suba ci àllarba ji di ñetti fan ci weeri mars loolu waxtaane woon nañ ko ci lël bi ñuy lëloo ak Ousmane euh, Sonko le samedi 27 pendant une heure trente xool nañu toutes les éventualités dem wuy jeeg ñàkk dem wu ji ba ñu waxtaanee Ousmane Sonko a été franc et sans bi mu ñuy expliquer raison yi tax mu contester la levée de parce que dafa wax ni procédure yi bu fekkee dafa jaar ci anam bu dëppoo ak yoon et que chaque étape saytu biñ ko war a saytu mu nekk lu impeccable moo xam bi requête bi egsee ci bureau assemblée nationale ba bureau bi pare jébbal ko la conférence des ñoo ñu pare daal di ko jébbal l'étape suivante mu di la commission ad hoc ba ni séance plénière bi di amee le dernier mot expliqué nañu procédure bi ni mu ko gisee que c'est entaché d'irrégularité c'est son droit le plus absolu parce que sénégalais la comme ñun ay naataangoom député doon ko doon saytu ay mbiram ndax dinañu d'accord ñoom député yi ñu muri maraanu kiiraay yi Ousmane Sonko ou pas il a le droit d'émettre un sur la conduite de son dossier de levée de son immunité parlementaire kon daf ko contester vigoureusement alors Adama s'il a été franc avec nous ñun tam nous avons été francs avec lui maanaam euh, ñaan nañ ko pour mu tenir en considération le fait que dontele contesté na procédure Assemblée nationale bi pour la levée de son immunité parlementaire pour mu jël en considération l'éventualité que malgré contesté na ko alors bu fekkee jébbal nañ ko convocation qu'est-ce qu'il va faire loolu waxtaanee nañ ko ak moom euh, ci biir waxtaan ba comme que délégation bi Abbé Jacques sec jiite am na ci benn wala wax ne ay juriste lañ ñu daal di évoquer l'article cent quatre-vingt-six bu code pénal wala code de procédure pénal bi nga xam ne moo ar artu ci wàllu ku juge d'instruction convoqué nga lànk conséquence bi ñépp xam nañ ko mooy dañu lay jébbal lu ñuy wax mandat d'amener maanaam dañ koy jéggal jébbal takk der yi nga xam ne ñoo lay seet si pour def loolu tubaab di wax euh, daa di la conduire manu militari yi mooy neex naqari dinañ la yóbbu yooyu waxtaan nañ ko moom yamuñu ci loolu nous avons convoqué l'histoire ndax fàtte xadu fi 2001 lu mel ni daf fi amoon une affaire privée opposant rahmatullahi alayhi euh, Khadim Bousso l'opérateur économique à une célèbre banque de la place moom tam ba ko yoon woowee dafa xaw a mel ni daf leen gàntal ah dama ne daal di dikk ñu fekk ko fële ca Touba ca këram dajji bunt bi fekk ko ci chambre à coucher jàppante am fa jàppal bàyyi ñu jékki dégg balu fital bu ne tël ba ay soxnaam dawee ñëw fekk c'était trop tard Xaadim Bousso tëdd na dans une mare de sang dal di sedd guy werante bi nag ñëpp dégg nañ ko am na ñu ne bavure policière la ndax dañu dañu jot mandat d'amener ñoom takk der yi pour yóbbu ko mu bañ am na ñu ne bu sa moo faat boppam ce que la famille a rejeté ndax jullit la ku am imaan la taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la kon xel demul ñu naan dafa xaru waaye li wóor ba wér mooy Khadim Bousso ñàkk na bakkanam njabootam ñàkk nañ ko moom convocation bu mu gantal juge bi tof toftal ci mandat d'amener mooy jëli leen ko mu neex ko mu naqari moo jur loolu yooyu yëpp waxtaan nañ ko ak euh, Ousmane Sonko ci waxtaan boo xam ne nag waxtaan bu franc la bu ouvert ndax yàlla dafa dogal nit wu diine moo jiite woon délégation bi muy abbé Jacques Seck waar na ko ci wàllu diine Diop moom itam waar na ko ci wàllu diine l'islam bu ko defee ñu daal di war a tàggoo ak euh, euh, comment dirais-je Sonko ginnaaw bi nga xamee ni ñun wax nañ ko suñu xalaat ak suñuy crainte waaye man personnellement j'ai insisté nee ko na nga bàyyi xel ci sa image en tant que leader en tant que parlementaire en tant que républicain en tant que légaliste mu di du rafet ci sa image ñu ne convoqué nañ ko mu bañ juge bi yebal takk der yi jox leen mandat d'amener fekk nañ Ousmane Sonko ca këram pëmti pëmtee ko mënute ko toroxal ko ma ne ko yooyu tam na nga ci bàyyi xel ndax tu ne mérites pas yooyu wax naa ni sa teg moom léegi nag euh, la ñu doon ragal am na mooy convocation bi justice jébbal na ko Ousmane Sonko ay awokaam am avocat yi jox nañ ko ko ci loxoom ba tax na suba incha allah ci àllarba ji di ñetti fan ci mois de mars ci la woo usmaan Sonko la question qui se pose nag mooy est-ce que dana dem dal di wéer léppam ci yàlla walla ox oh, est-ce que dafay xëccoo ak ñoom ba mu nar a jur musiba yàlla nañ ci yàlla musal kenn ñaanu ko ba ma laajee moom usmaan Sonko su ma xalaat parce que il a été franc et direct avec nous ma ne ko ñun ñi nga xam ne société civile. ak yeneen i kuréel ñoo xam ne c'est des sentinelles vigilantes de la démocratie bu ñu nee Ousmane Sonko wuy ji na ma ne ko yokkute lay doon ci yow parce que dina tax citoyens yépp ubbi seen bët nekk de sentinelles vigilantes ne ko bàcc sur l'institution judiciaire ba xam dossier bi danañ ko jaarale ci yoon wala déet waaye bu fekkee da nga lànk ñu pamte la yóbbu la di nga jox bunt ña nga xam ne ñeenew yéenew ñu la jàmm dal di ne kii kat indi na beneen infraction mooy acte de rébellion contre des agents des force de l'ordre assermentés mu daal di indi beneen procédure nga daal di may saay-saay yi porox ndol la bu ñu yokkaate tuuma ay tuuma ci sa kaw loolu moom moom ma laaj ma wax ko suma xalaat léegi nag il a tous les éléments ba tax suba talaata alarba euh, di ñetti fan ci mois de mars est-ce que Ousmane Sonko dana dem uy ji juge bi est-ce que du dem loolu nag suñu borom subhanahu wa taala ak Ousmane Sonko kot kot ñoo ko xam waaye ñun jéemuñu wañaar loxoom jéemuñu ko contraindre il nous a fait l'amitié de nous recevoir respectueusement wax ak ñun avec franchise kon ñun itam waajib la ci ñun ñu rendre ko la politesse c'est-à-dire wax ko suñu xalaat avec franchise saa a été une discussion trop longue une heure trente que suñu ñëw ba foofa utile na ko alors kon nag ñun ma ñu dul ñaan yàlla yal yàlla éclairer la conscience de Ousmane Sonko yal na yàlla xiir ko mu jël décision bi gën ci moom décision bi gën ci réew mi décision bi gën ci Sénégal bi gën surtout ci jàmmu Sénégal kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla suturaal ko. di ñaan suñu boroom mu wàccee ngelawu jàmm ci réew Sénégal yal na yàlla dàqal réew mi seytaane suñu kilifa diine yi yal na suñu boroom saxal leen ci kanamu njaboot gi ba mu yàgg lool ñoddi seen fante mu ànd ak wér yal na yàlla def jàmm ci réew mi làqal ñu Sénégal fu yàq yeegul asalaamualeykum wa rahmatullah